man maa defoon euh, vidéo bi ngeen gis euh, en ligne ces derniers temps là buy dénoncer le meurtre de ma sœur Dib Niang qui a été assassinée de façon très lâche Euh, et que may dénoncer temps yi le maximum possible pour que justice soit faite en fait pour revenir un petit peu en résumé pour ceux qui n'ont pas suivi le dossier euh, histoire bi mu ngi am dans la nuit du 23 au 24 mars 2016 euh, ci benn village bi ñuy wax Tewrungaar yi dans la commune de Ngélu Euh, département de Kaolack région de Fatick. en fait matre bi bi mu amee euh, le mari de ma mu ngi woo sama frère mu ne ko sa mag dafa nelaw mu ne ko waa baax na ñoo ngi ñëw cinq minutes plus tard mu rappelé waat ko mu ne ko euh, en fait sa sœur nelaw na mais soxla woo leen a ñëw yëbal leen rek jigéen ñi nag góor ñu toog man ak sama famille dinañ mën a éggale li ci des sama frère mu ne ko lan moo tax sama sœur bu ma bokkal ndey ak baay mu nelaw man mënuma présenté wu en personne mu ne ko parce que dafa am na mu demee dafa xaru maanaam dafa dafa takk buum ci ci baatam lang foofu la doxee nelaw sama sa sama frère mu ne ko nu muy mën di demee bu ko kenn denc te ñëwuma ñu dem woo sama yaay avec la famille proche ñu présenté wu en personne bi ñu ñëwee nag lañ leen wax ak lañ gis wuute na parce que dañ ne pendaison lañ leen woowee ñu ñëw fekk deret un partout dans l'enclos ñu fekk ñu tëral ko bopp baa ngi naaj ñi fekke woon bi gendarmerie ñëwee nee nag bi gendarmerie ñëwee bi mu leen laajee ci ban branche lañ ko takkoon lañ ko fekk mu takk boppam bi ñu leen wanee branche bi ñu jël une un fer boo xamante ni mu ngi mesurer le même poids que takk ko ci fer bi dafa damm euh, branche bi dafa damm ñu laaj leen est-ce que fekk nañ ko mu yàq ay yéreem mu ne leen euh, tontuwuñu léegi nag ñun ñu jaaxle parce que buum boo xam ne moom la borom takk ci bo ci boppam di lang lan da ci ouverture du crâne di wuti gendarmerie jël euh, corps bi yóbbu ko pour des tests médicaux dans le constat de décès li ma liir mooy <coughs> le décès est survenu à la suite euh, d'une hémorragie cérébrale avec une large ouverture du crâne fronto-pariétal man mënuma nangu ne ñaar yooyu c'est quelque chose qui vient ensemble le même jour gendarmerie tegg loxo jëkkëram ak euh, magu jëkkëram gu mu bokkal ndey ak baay ñu garder leen deux jours à Guinguinéo <coughs> par la suite ñu transféré leen à la MAC de Kaolack fu ñu def trois ans de détention euh, bi ma ko déggee décès bi foofu la engagé maître Assane Dioma Ndiaye mi doon suivre le dossier mais à un moment donné particulièrement le 22 juin 2019 la ma sama benn xarit woo Canada mu ne ma dégg na ne mes ex-beaux-frères sont libérés <coughs> ma ne ko loolu nu mën a demee ma woo sama avocat laaj ko mu ne ma il n'a pas reçu aucune notification mais il va vérifier après vérification mu woo ma mu ne ma ils ont bénéficié d'une décision de non-lieu ma ne ko non-lieu comment mu ne ma cela veut dire que ils n'ont pas assez de charges pour les culpabiliser ma ne ko ban solution la ñu am maintenant pour lutter contre cette euh, pour euh, pour euh, s'opposer à cette décision mu ne ma on a l'option de déposer un appel mais jotaguma sama notification officielle donc notification officielle boobu traîné na jusqu'à la semaine passée lañ ci doog a euh, jot le mardi de la semaine passée bi j'ai oublié la date exacte la ci doog a jot léegi nag euh, man mënatuma muñ ça fait longtemps ça fait bientôt quatre ans que ñoo ngi souffrir de ce meurtre non justifié sama yaay souffrir na ci ba dem te xamul lan moo yóbbu doomam muy loo xamante ni métti na trop doomu aadama képp ku ku ku tout être humain qui est doté de de la notion de l'humanité ça dérange depuis quatre ans ñu koy dund mu métti trop ñu toog ba jékki-jékki dégg ñu ne génn nañu et comme si c'était pas assez bi ma wooyee sama famille pour comprendre lan moo xew lan la ñu mën a def pour dire non à cette injustice particulièrement ñu euh, yaru xale yi parce que ñu ngi leen di gëmloo ne leen dañoo war a topp seen papa peu importe lu muy man di def mënuma comprendre il y a des man lii un géniteur laa ko mën a tuddee mënuma koo tuddee un ma laaj lan moo xew ñu ne ma <coughs> euh, bi ma laajee sama famille ñu ne ma euh, nee na jabaram la rey jur na ak moom fukki doom te yow da ngay sëy ak doomu ndeyam donc wax boo waxee day ñaaw en plus ay mbokk lañ nañu jël loolu gas ko ci suuf bàyyi ko c'est une histoire de famille yoon wu teetu ci dara segem yoon bàyyi na leen nañ leen bàyyi man mënumaa nangu loolu ma ne leen parce que premièrement war nañoo xalaat éducation xale yi premièrement war nañoo xalaat la sécurité des femmes qui sont autour parce que su fekkente ni kii mën na koo def tout l'entourage apprécie mais qu'est-ce qu'il de la sécurité des femmes des femmes qui sont autour prochainement ku ku mere sa jabar mën nga koo rey c'est pas grave euh, boo amee chance euh, justice libérée la il y a aucune chance que ñu suivre la parce que de toute façon c'est quelque chose de normalisé socialement mënumaa nangu loolu ma ne man peu importe ce qui se passe même su fekkee man man kese dem ba sës ñu ne ma boo ci demee da nga lor sa bopp parce que nañ dañ cee def ay ñaan yoo xamante nii bu ku ci wax da nga di ma ne leen man dee suba wala dee gannaaw suba jaaxalum qualité temps bi ma passé sur moo am ci man sol te mënumaa dund di seetaan sama progéniture dans un si mauvais chemin mënumaa dund di seetaan une telle injustice je me sens directement concerné boo xamante ni su daloon keneen tamit dama waroon a taxaw joxe sama maximum pour dénoncer cette injustice et faire appliquer la loi après ah, particulièrement su fekkente ni man la en plus su ma toogee dinaa gis ne man j'ai pas de je je ne je n'ai pas été reconnaissante envers cette sœur qui n'est pas seulement une sœur mais aussi une maman ndax su fekkente ni man lañ ko defoon de dana joxe woon son maximum y compris sa vie pour dire non à cette injustice donc mënumaa toog jàkkaarloo avec dix enfants dix innocents qui n'ont rien demandé qui se font priver de leur maman de façon si injuste ma toog naan damay favoriser la cohésion familiale c'est injuste c'est inacceptable mënuma koo ma ko lu mu laaj je suis disponible y compris ma vie loolu mooy li nga xamante ni moo ma tax a jóg ma jógee Canada ba fii sacrifier sama njàng parce que dama juste de sama stage sama session jeexagul ma sacrifier le tout financièrement parlant c'est vrai que je ne suis pas disponible j'ai sama bopp ñëw parce que moi je me dis que ce combat là ça tout ça tout parce que c'est toute une famille qui menacée, c'est toute une sécurité de tout un entourage qui est menacé, mais c'est également c'est toute une société qu'on est en train de conduire vers des euh, la dérives inexplicables parce que su fekkente ni nangu nañ ne rey na jabaram il n'a pas de compte à rendre à personne donc ñun ñoo ngi nangu ne les violences conjugales tant que ça vient du mari c'est très acceptable et c'est normal en 2019 man ñang baalu mënu baa nangu loolu donc je suis disponible à donner tout ma indi fii objectif conférence de presse bi mooy faire inviter les médias pour ñu pas seulement le message à la euh, au peuple sénégalais aux autorités particulièrement au parquet pour ñu jàppale ñu ubbilaat ñu dossier bi ñu mën a juger de façon juste et équitable ñu mën a comprendre lan moo dal sama sœur lan moo ko ko yóbbee ndax résultat euh, euh, poursuite dossier bi ça a un impact direct sur l'éducation de mes nièces de mes neveux et nièces yoo xamante ni ils sont actuellement sur un très mauvais chemin entouré entouré avec des idéologies très inacceptables aujourd'hui ñu bëgg leen a gëmloo sa jabar dara nekku ci ils n'ont pas à se justifier c'est inacceptable mënumaa nangu loolu on est en 2019 un être humain et reste un être humain et je tiens encore à préciser que ce combat c'est pas un combat de femmes contre hommes c'est un combat pour l'humanité su fekkoonte ni c'était le sens inverse je ferai encore pareillement nekkuma fii pour de xeex contre les hommes je suis là pour la justice pour les l'équité mais nekkuma fii pour dem di xeex parce que góor la koo xamante ni laal na jabaram histoire de féminisme yaakaar naa li xew ci dëkk bi yéen yëpp gis ngeen ko temps yi meurtre yi bëri na et tout et je crois que ce fameux sutura mooy di ñu ko yóbbee ñun ñëpp jàpp nañ ne bu fekkente ni sa jëkkër mooy def dangaa war a noppi da ngeen ko war a régler seen biir kër mais lu ëpp loxo tuuru te lii dafa ëpp loo xamante ni dafa war a génn la bu demee ba bakkan wadd histoire sëy bu demee ba bakkan war di nekkatul loo xam ne famille moo koy gérer justice moo ko war a gérer et j'ai confiance à la justice sénégalaise je n'ai pas de doute de la compétence du système judiciaire sénégalais la seule chose que je demande c'est une réouverture de ce dossier et je n'ai pas de doute que une fois que ce dossier sera réouvert une justice sera appliquée de façon juste équitable ku nekk mën a xam fan nga féete ñu mën a xool la prochaine fois pour mën a prévenir la prochaine fois de tels actes ma préciser encore l'éducation de ces me tient énormément à cœur parce que xale yi suñ gisee lan moo xew ñu xam dëgg bi xew ndax jusqu'à présent que ne seen papa euh, bu reyee seen yaay dara nekku ci dañ ko war a topp ñu mën a xam ne un papa c'est quelqu'un qui doit protéger sa femme et ses enfants et non pas quelqu'un qui doit priver de ses enfants de leur propre y compris un enfant de deux ans boo xamante ni mu ngi tëdd ci kaw lalam mu rey yaayam di ko seetaan fekk moom mu ngi yor ay bijaawam ba jàkkaarloo ak yaayam dem ko mu neex ci xol trop amul lu ko gën a ñaaw ci kaw suuf apprécier ko y a rien de plus lâche que ça et man lu muy mën di laajte y compris ma vie dinaa ko joxe loolu moo tax ba ma sacrifier sama bopp

de laisser passer cette injustice-là, je ne me sentirai plus moi et je ne sentirai plus utile ma vie sur Terre.